fii ci réewum senegal combat yaa ngi ñëw Modou Lo Ama Baldé yéeg seegut Balla Gaye Bombardier yéeg seegut Papa Sow Siteu yéeg seegut gisagoo dara xam nga fi mu ne man lu ma wax rek waxit la nit ñi dañu roy ci man waaye man royatuma ci kenn ku ci yàlla yonent bi Sëñ Tuubaa déggoo lu ma la wax te maa sama empreinte ba ci war a wax président bi waroon a toog Ablaye Wade ba muy jongante ak Abdou Diouf dama ne Abdou Diouf dafiy jógee day wàcc muy dëgg Macky Sall nekk ci Ablaye Wade ñu dàq ko ma mer ne na Macky Sall dafi jëlee Ablaye Wade ba muy dëgg. kañ ngay mer nag ci réew mi toll. gisuma kenn kuñ fi def loo xam ne jar na may mer gisaguma ko. Ousmane Sonko ak li xewoon ci moom. Ousmane Sonko barki Dembo ci lan la doon xeex assemblée nationale. dañ ñi sax dañ koo tooñ. loolu waru ko. même buñ ko tooñee. ba li ci Adji Sarr. dégguloo li ma la wax dégguloo li ma la wax. Ousmane Sonko Ousmane Sonko gisaguma lañ defoon Macky Sall mu nekk ci gouvernement di jàppale di daw di nooma ko fu nekk ba ñu xëy di dàq ko toroxal ko ne du génn dëkk bi la ma ca yëgoon yëguguma ko ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko sénégalais la ni ni nga nekkee sénégalais ma nekkee noonu sénégalaise euh, euh, Macky saal nekkee noonu sénégalais su fekkonte ni gis naa muy dugg ci pale bi billaahi wallahi wa taala dama naan gis naa Ousmane Sonko dee dugg ci pale bi gaa yi bu leen fàtte sama numéro 77 737 67 46. ku ma soxla woo ma. maa fi seetkat ndëmba wan maa fi toj ci làmb ji. Hmm. waaw làmb ji toj kay. combat yaa ngi nii taxaw. dégguloo li ma la wax combat bi ana combat bi ban moo taxaw gum. ah Modou Lo Ama Baldé. ban ban yow nga am yow yow yow jarbaat yow. ba tey ji combat bi ñëwaguñ dimanche bii la ñëwaguñ suba la combat bi ma di la ko wax tey combat Balla Gaye ak Bombardier pare na bu yàgg. Hmm. bu nee suba la laa koy wax. buñ nee suba ci kattanu yàlla lu tax xalaatuma ko yow sa intérêt nga bëgg mais loolu arrangé wul ñaari mbëri man tamit am na ay temps lii moo ma daloon ci ëmma seen muuduloo léegi loolu defatuma ko léegi bu nee suba la ko combat bi ci kattanu yàlla moom laa moom naa nangam la mais jamono ji yow selmi nga jàkk yàgg na. jàkkaarloo déggaloo ma la wax façon daan koy daan li ma la wax. Mhm. xam nga euh, maanaam diggante Balla Gaye ak Bombardier mhm. gis naa victoire. Mhm. xam nga victoire yomb na mën ngaa gis mbër mbër boo gisee mu yore mbaxane sax wala mu yore musóor gi sax victoire ñaari mbër yu bëre kenn koo ci gis rek benn signe victoire la dina am làmb yoo xam ne dina am jël dina am làmb yoo xam ne du am jël. du doon jël mais day am victoire ñaari mën na mën nañoo bëri dem ba ci kanam ñu jox kenn victoire avertissement yi bëri loolu yëpp day ci làmb te nañ dem ci kanam incha allahu rabbi Selbé ngay waxal de Selbé Ndom taalibi sëñ Tuubaa bii xarit sëñ Moustapha Sy mu ngay waxal de xaan xaana nga fàtte Selbé 2010. ñu jëm ba tey maa ngi toj. ñu jëm ci wàllu politique gis nañ jamono ji ñu doon voté loi bi nga xam ni moo la terrorisme. Euh, euh, ba am na ñenn ci ay député yoo xam ne jot nañ faa laale euh, tey comportement député yooyu nga xam ne ñoo toog ca ndawul réew mi pencum ndawul réew mi yow en tant que sénégalaise bokk ci ndawi réew mi ban jàngat nga ci am. am na loo xam ne terroriste ko tane ci mim réew. mooy lan ñun dañoo nekk ay sénégalais ki sénégalais fier de l'être muy dëkku teraanga mm-hmm. réewu teraanga la ñu wax. du réewu histoire du réewu xeex du réewu indi fitna assemblée nationale lañ ciy doxale man Selbé neexu ma man su ma ca nekkoon nit du ma def noonu ndax loi bu ñu mënti tëral mën nañ koo waxtaane te bañ xuloo bañ a xeex bañ a wéqante bañ a sànnante ay maraakis ndax ñoom dañoo nekk ci bopp ndawi réew mi bopp réew mi la ñu nekk ñun ñu nekk ci suuf ñoom ñu nekk ci kaw bu ñu nekkee di xatalaay di xeexoo ñun ñu nekk suuf di leen seetaan ñun nan la ñuy def il faut ñuy xoolaat ñoom nañu nekk assemblée nationale Moustapha Niass la ñuy njëkk a xas te Moustapha Niass du seen seen morom Moustapha Niass lañ koy yàq rek man Moustapha Niass xanaa àdduna bi Moustapha Niass fi gën Moustapha Niass fañ Moustapha Niass ñoo fi gën ndax lañuy ñuy yàq Moustapha Niass képp ku taxaw di nga joxoñ wax Moustapha Niass loo xam ne mburu ma sax du ko daj ca taal ba te dañoo xaw ensemble national dañoo war a xam ne nit ñi dañu leen seetaan ñoom ne nas ko nocc am na nag loo xam ne terroriste ba ñu bëgg a teg sax moo ko tane ndax yee fitna làq sa doom ci sa biir kër mm-hmm. yuuxu génn ay doomi jàmbur ba ñu dee ci loolu terroriste sa ko tane mm-hmm. mais ki ki ki ki joxe loi bi nag nañ nañ voté loi boobu di président de la république waaw mu jàpp ni sénégalais yi am nañ droit manifester mais ku ci manifester rek ñu jiñ la terroriste déedéet xam nga manifester nañ koy defee man man su ma bokkoon ci ci gouvernement bi ci lay gën a metti ndax lii ñuy def nii man du ma ko nangu. Hmm. man xam nga su ma doon manifester nu may def ñaan autorisation ñu may ma ba pare ma def def sama alignement policier ñu encadré ñun lañuy def ak sunu njiit yore micro ni lii la ñu bëgg ak lii ak lii gis nga ñuy ut réew mi. ci fi mu toll nii gisuma ci kenn koo xam ne wax naa lu yenu maanaa loo xam ne maanaam man Selbé mën naa koo dégg booy ut réew man Selbé noonu su nekkoon damay ut réew mën naa taxaw ni leen ah sénégalais damaa ba ngeen dénk ma réew mi ndax kat gis naa ne réew mi fi mu toll nii boo demee ci hôpital yi am na ñoo xam ne ñu ngi feebar dañ leen di teg foofu duñ leen faj ndax yoruñu am na ñoo xam ne ñu ngi nekk fii ci mbedd bi di yalwaan te loolu war naa mën a jeex senegaal bu njëpp di liggéey chômage dootu amati dox yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi bu ma yoree réew mi bëgg naa leen utal foo xam ne ci kàttanu yàlla dinañ fa nekk ut ñoo xam ne dañ leen di faj sécurité bi doyul de su ko man damay ut réew mi loolu man noonu laay politique sécurité bi nga xam ne moo nekk ci réew mi doyul ndax ñu ngi rey suñu doom yi agression yi xeex yaa ngi si morom yaa ngi xeex bay jamante man su fekkonte ne man damay def politique man noonu lay uti réew mi nga xam ne bis mu yàlla dénkee réew mi ci kattanu yàlla maanaam nii ma wax noonu laa koy saafaraa courant dootu ko lu bëri ndox dootu dootu kii facture yu cher yi dund bi cher na man loolu laay politique mais duma ma politique génn ay nit dexee ba ay bakkan di ca wadd deret di ca tuuru man man genre politique boobu ba tey ci boobu